yéenekaay yi ak Ami Deme Senghor. internet 5 TV àllam seen nopp ma déglu leen si yéenekaay yi. tijjee national bi la koy dooree Le Soleil di ñu xibaar si lu ñeel tere bi nga xam ne moom la ñu tere ndimbal bu waa bitim réew di defal parti politique yi. yéenekaay bi ñëw ci li undu dëgg-dëgg rek luwaa boobu Maurice Soudieck Dione eh, di jàngalekat ak gëstukat ci lu ñeel xam-xamu politique. ci yéenekaay bi ne luwaa boobu dañu koo amal ngir rek moytu li nga xam ni mën na koo jur te morom doole yi ci ko buum mi mi yaayaa ñaa bi gàllu wàllu a yi loi boobu la tribune ne loi boobu Ousmane Sonko mooy ki ci Félix Diome rek njëkk dégmal ba tax suuf su aane gannaaw Khalifa Sall ak Karim Sonko la Antoine Diome ci tas parti Pastef la jëm Biram Souley bokk ci Pastef xam na ci le quotidien ne bu amee benn parti boo xam ne dañu koo war a tas APR lay doon Vox Populi doole di ñu si xamal ni Sonko jot na 125,8 millions millions ci ay waxtu yu néew a néew Les Échos di ko dëggal ndax fësal na ni Pastef nee na rek jot na 125 ci kopparu CFA 81 yoo xam ni war na koo jot ci ay ndimbal ba tax enquête ne millions yi waa Pastef di jot moo merloo Antoine Félix Diome si loolu nag yéenekaay bi ne lu ñeel campagne bi waa Pastef di def ngir am koppar état bi gis-gis bu ñuul la ci am lii quotidien teg ca ni lu jëm ci loi bu ñeel parti politique yi Antoine Diome da caa juum Assane Dioma ñaari tolluwaay jur na rek ñaari dogal ba tey maître Assane Dioma Ndiaye ci le village yéenekaay ne rek bi ñu andi deful rek xaajale ci sénégalais yi muy ñi nga xam ne dund ca bitim réew wala ñuy dund ci biir réew mi enquête dolli ci ni ñi faree ko kujje gi dajaloo nañu bootu ci ginnaaw Pastef ba noppi nag daal di delloo jëriñ ay luwaawam Guy Marius Sagna si les échos ne njiitu réew mi bu doon njiitu réew ba woon di maître Abdoulaye Wade daa yebaloon IGE di inspection générale d'État ci moom du ma sa nekk sax njiital gox waxantuma laa nag muy yootu njiitu réew jàll ci la tribune ak révélation bu mag a mag bi nga xam ni moom la fa metti El Hadji def mu xam ne rek mooy Macky Sall waxoon na leen ni rek du amal ay jongante gox-goxaat wala député ak les échos teg ci ni mouvement M24 ñoo ngi waaj rek ngir dakkal yoonu Macky ndax rek ànduñu si ñetteelu candidature bu njiitu réew mi yéene kaay bi ne mouvement boobu nag ñenn ñi nga xam ni ñoo bokkoon ci mouvement M23 ñoom ñoo ko sos ngir tere Macky Sall muy bokkaat ba woon démb ngir waxtaan si lu jëm ci tolluwaayu ville yi ci mi université bii di Seydou Diouf Yatma Fall Mamadou Diop Thioune bu Haut Conseil des collectivités territoriales Salam Gueye bu CESE e, bépp mbooloo boo xam ne rek bu maam Kumba Lamb la ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci Rufisque nag ñoom nee nañu diir rek ngir ñu fiy jëlee seen ville boobu di ville bu Rufisque ndax nee nañu nag patrimoine mondial bu UNESCO la waaye nee nañu euh, waaw rek ngir ñu jëlee fi commune bu est nord ak ouest laaj bin di laaj ba xam bu dee seen TV daa war fay benn milliard ci kopparu CFA ñaata la RTS TFM ak war fay ci lu ñeent rek redevance masuñu koo fay lii quotidien addu ci tolluwaayu mbas mi li mu xam ne rek mooy ci faat na leen ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñu bees ñoo xam ni na leen source a teg ca ni ci diiru ko ñaari fan mbas mi faat na fukki nit ak loolu nag yóbbu limu ñi nga xam ne ñoo faatu ci mbas mi li mu duggee ci réew mi ak léegi ba si ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn doomu aadama ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti kaa la am si ñi nga xam ñoom ñoo am doomu jàngoro ji ci week-end bi critique ne jàngoro ji moo ngi law bu baax a baax ci école yi le quotidien di ko ko dëggal ndax fësal na ni ak yokkute cas Covid 19 bi ubbite waat tey ak tribunal yi dàqat nañu ko te amul nag àpp boo xam ne moom la ñu si joxe enquête ne yokkute cas yi xalifa général des mourides joxe na si ndigal le quotidien ne dëppoo ak diglewu waa kër docteur loolee mooy ndigalu xalifa général des mourides la tribune ne Serigne Mountakha joxe na ay dige ngir atub bi ñu mën koo dund rek ci jàmm ak mbég tiiti dolli ci ni Serigne Mountakha digle na bésum njàngum alxuraan ngir rek ñaan ci ngir mu jóge ba faawu dañu ndarkee peeli si ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.